dal leen ak jàmm ci leeral point net tey nag ñu ngi daal di xëyee ci xëtam nga njëkk affaire des passeports diplomatiques procès renvoyé à 7 avril 2022 naka noonu rek daal mbiru passeport diplomatique yooya yi nga xamante ne rek dal ay député Benno Bokk Yaakaar rek daal ñoo ko daal di wën séq naka procès googu rek dañ koy daal di tuxal rek ba le 7 avril ñu jëm naka rek daal muy procès bi nga xamante ne gannaaw loola jàpp nañ ko daal ci le 7 avril gi ñu jëm daal ci mbiru passeport diplomatique yi nga xamante ne juge ba daal moom moo ko daal di eh, ñoŋal loolu ci lañ leen di daal di jugé daal ci kanamu baar ba waaye nag daal ñu woowee rek daal appelé le tribunal correctionnel nag eh, jeudi ji ñu jëm waaye tamit ñu mën a xam ne dossier gi nga xamante rek daal eh, dañ ko waroon jugé ci fan yile daal dañ ko rek daal tuxal ba le 7 avril bu ñu sukkandiku ci tribune li nga xamante rek daal mooy mise en cause Sadio Dansokho. wul woon rek daal ca bis ba. naka rek daal li daal di wax de jógewul sax prison gi nga xamante ne fa la daal di nekkoon loolu rek ñuy daal di xaarandi bu ñu sukkandikoo ba tey ci libération Boubacar Biaye Mamadou Sall ki nga xamante ne mooy El Hadji Diadié Condé ñoom rek daal ñu ngi ba tey ci détention ndax seen avocat dafa rek bëggoon ñu libéré leen ci liberté provisoire waaye juge ba dafa daal di bañ loola